gannaaw mbënd mi nga xam ne rek jamono ji am na jafe-jafe ci réewum Sénégal bàyyiwul nag file ci dëkk bu sell bi di Touba ay gox yu bëri nga xam ne rek ñoo nekkee file askan wi di jànkonteel ay jafe-jafe tax na nag ci tournée bi nga xam ne ñi ngi ko doon amal di préfet bu Mbàkke Makhtar Diop ngir recenser njaboot yi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ci ndaamaatu file nag njaboot gilee ñu leen fay jëlee yóbbu leen fi nga xam ne rek moom moo di ci Touba Ndam ñoom itam ñu ne jafe-jafe dëgg dund nañ ko foofee ci ndaamaatu fekk nag ak jafe-jafe goo xam ne rek ndox mi moo leen ko yóbbee ay bagage yu bëri daal di yàqu ci njaboot gi lee waaye nag gannaaw ba ñu jotee visite préfet bu Makhtar Diop loolee mbégte dëgg la ci ñoom. moom préfet bu baax a baax ndax euh, ndax keroo ba nga ba nga ñëwee kër gi ak léegi muyoo muyoo jàmm maam sa gaay yi nga yabal foofu maam pour ñu xoolal ma kër maam gu ma nekk. rawatina sëñ xaadim mi sëñ xaadim keroo moom wax di yàlla moom. Mm-hmm. Euh, bay na ci waaram. Mm-hmm. te it ko ñaari yoon mm-hmm. boobu maa ngi taxaw. waaw boobu boobu boobu maa ngi taxaw. Mm-hmm. moo tax ñu ngi ñu ngi ci sant bu baax daal. Mm-hmm. ñu ngi lay sant nag maam sa taxawaay moom gis nañ ko baax a baax ñu ngi sant ñiit Jóob ak mut jaw jaw meeg. Mm-hmm. ak xaadim mi wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant ñu ngi leen sant maam seen taxawaay. bu baax a baax a baax wax. moom moom moom bëgg nañ daal. maam sun xol daal dafa sedd. moom moom xam na ni daal maam li la li la li la li la li la maam président jox daal. yaa ngi ciy dox say jéego. noo ca manee mm-hmm. waaw ndax euh, rawatina ñi nga àndal muy suñu xaadim mi ak mm-hmm. waaw ndax. préfet bu Mbàkke yëkkati kàddu daal di jëmale ci jafe-jafe googu yi nga xam ne njaboot gi ñi ngi koy jànkonteel waaye nag kër gi nga xam ne rek jot na leen fay indi mu mel nag loolee dina saafara lenn ci seen ay jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. ñu ñu jotaat gouverneur li gënoon li gënoon euh, li gënoon nekk yitte moo doon génn immédiatement ndox waaw ah, man ma sañoon démb sax kenn du fa fanaan. mais voilà voilà léegi comme comme loolu am na. Mhm. Euh, service yi fexe nañu ba ngeen am foo leen dugg. Mhm. léegi lu si des rek dinañ ko jéem a mottali. waaw si wàllu matelas. bu ko lim bi bi nga xam ne soxla ngeen ko. ak éventuellement ay drap ak dundu ah. ak dundu waaw dinañ xool daal. après luñ si war a kii rek. ñun dinañ ñëw def liggéey bi. donte nag jox nañ leen geneen kër kër yi nga xam ne rek foofe la ñu njëkkoon a nekk préfet bu Mbàkke di xam ne ne foofee itam sapeur pompier yi nekkee foofee dinañu ko pomp xoolaat foofee njindi ba jafe-jafe yi nga xam ne. mais pour l'instant ñii nañu génneegum ak ñeneen ñi nga xam ne dina leen bëgg nañ ci parce pour ñu dugal leen fen moom amul problème am nañ fu ñu la mën dugg. seen kër yi ne ñooñu kër yi nga xam ne dafa taa te pompage mën ko dindi cest di dire moto pompe pompe ko mu génn loolu moom amul problème loolu na ñuy def ndax euh, ñoom par exemple bu ñu jëlee exemple si seen kër euh, sapeur yi nañ fa dem pompe waat ndox bu ndox bi génnee ñu désinfecté ko bu fekkee gis nañu ne bâtiment yi euh, amul problème ah alhamdulilah loo xam ne am na si jafe-jafe ñu war ko renforcer même bu fekkee dañ ko war a raaxaat ñun dinañ fexe ba ñu jàppale leen ñu raaxaat ko kër gi nekk kër gu xaw a normal voilà loolu aussi nekk nañ ci disposition yi pour def ko. laataa loolu itam am na ay matuwaay yu am solo yoo xam ne itam jotees na ko cee jël ngir njaboot gi ba ña am yenn ci jafe-jafe yi.